jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun ba mu jeex jàng xul huwallaahu ahad ba mu jeex lu ci nekk juróom ñaari yoon boo salmalee nga wax la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azimi juróom ñaar fukki yoon maanaam 70 fois boo paree nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa juróom ñaar fukki yoon des na ko jéggal bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj te aaya ju ci nekk des na ko ca bindal tuyaabay jaamu yàlla ak am at te dana mel ni itam ku goreel junni jaam saraxe junni dinaar reggal junni xiif woddu junni rafle te lépp lu nekk ci kaw suuf dana ko jéggulul mu boroomam moo xam lu wow la wala lu tooy te dees na ko musal ci balaa yi ak fitna yi akub xiif akub ràgg te it dees na ko musal ci saddum jinne te dees na ko musal itam ci mettit mettitu dee te dana tàbbi aljana deesu ko xisaab bokk yi ku ci bëgg yeneen ni leeral dangay dellu ci page 145 te xurratu ayni bu sëriñ Souhaïbou Mbacké yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi